ñi nga xam ne nag ñoom ngànk nguur gi di ci noos di ko séddoo séddoo bukki bëgg ci ngoy bëgg ci des dañoo am ci bu ci at président Ousmane Sonko ak ñi par vingt li nga xam ne moom la ci mois de février euh, ci élection législative 2017 kon ci juróomi at kii nii moo nar a président ñii nii ñoo nar a jiite réew mi te comme xamee wuñ leen caaxaan comme xamee leen tàppale dinañ yore réew mi ci anam bu mujj ayib ah dinañ seet seetantal dinañ génnee dossier yi nga xam ne dañoo euh, yàqal askanu Sénégal dañoo luubal askanu Sénégal tiitaange googu rek moo ngëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. président Ousmane Sonko nag ci njabootu aji bëgg réew yi nekk ci Sénégal mooy ki nga xam ne moom la baatam gën a kawe mooy ki nga xam ne moom la askan bi gën a xam moo tax ñu bëgg nag jël kooku faagaagal ko moo tax nag ñu bëgg a jël président Ousmane Sonko sàkkal ko pexe ñun nag ñu ne du fi amee tey du fi amee ëllëg ñun nag ñu ne président Ousmane Sonko kenn du ko laal. wala boo ku ko fas yéene laal ci suñuy yaram ci suñuy néew nga dara dox may laaj askanu Sénégal ñuy laaj askanu àddina si sépp ndax yow yaa def war na mën a tax ñu ne nit dañ ko dëj ñu ne nit dinañ ko euh, dinañ ko xañ mandat député ñu ne nit dinañ fexe ba du mu nekk candidat élection présidentielle yii di ñëw waaw ndaxte ñun dañoo gëm ne plan wu président Macky Sall ak ñi mu àndal bokk na ci Mamour Diallo porté plainte pour diffamation waaw ñu ne président Macky euh, président Ousmane Sonko li mu wax du dëgg Mamour Diallo na porté plainte Mamour Diallo nag am na jafe-jafe pour porté plainte ndaxte bu porté plainte ah yoon def liggéeyam. tribunal def liggéeyam président Ousmane Sonko nag dem ci tribunal dem ci kanamu yoon génne ay firnde woon ndaxte nag ñun ñoo ne président Ousmane Sonko li nga yor na ko denc na ko nëbb ba keroog ngay dem ci kanamu yoon benn ñun yaa xamte nañ Mamour Diallo porté plainte waaye Mamour Diallo ak pression yi muy subir yëpp. ñu naan ko portel plainte waa APR président naan ko Mamour portel Mamour portel Mamour portel Mamour bëggul portel ndaxte Mamour xam na li mu def moom ak ñi mu àndal Mamour xam na li mu def waaye ñun dañoo bëgg mu porter plainte ay Mamour portel